damaa tiitoon kat. 88 628 17 27 88 676 08 08 vous pouvez nous appeler aujourd'hui on va parler euh, de ce qui euh, nous intéresse tous ban Sénégal la ñu jëm ak ban gouvernement la ñuy xaar waaye balaa ñuy tàmbali ci loolu damay dem seeti Karim Meïssa Wade moom Karim Wade ki koy dalal moom mooy Kouthia Abou Bilal Kouthia maa ngi lay nuyu ana kon euh, Pape tamit bu baax euh, ñu defal jàmm ak euh, ko defal jàmm bu gudd ak wér gëram waaye gërëm képp koo xam ne yaa ñuy seetaan rawatina ñi nga xam yi réalisateurs yi ak équipe décor ñoom ñëpp waa 2STV yi na leen defal jàmm sponsor bu mag baa ngi noonu ànd ak yéen di ci boisson yi nga xam ne mooy gaamam bu foo gis bu ndaw rek am na bu magam boo ci gisee ananas bu ndaw am na ananas bu mag boo ci gisee li nga xam ne nag mooy orange bu ndaw am na orange bu mag vimto bu ndaw vimto bu mag ak limonade bi la gazelle bu ndaw am na bu mag moom mooy gamme bi nga xam ne nag depuis ay at ñu ngi ànd ak ñun di ñu géexloo ñu leen jox suñu xaalis waa Soba kenn du yéen yal na ne yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram ta ah, korité bi ak kanam bi daal bëgg nañ ko gis ci table yëpp ku ñu lekk sa ginaar daal di géexee li nga xam ne mooy boisson yi xam ne wax dëgg yàlla da ngay digérer cent pour cent Pape xew xam ngeen ko Karim Wade nee na wax dëgg yàlla léegi xelam dal na xelam gën naa dal gisul lan moo koy tere ñëw Sénégal parce que ñi doon laam-laamee ñëwam ak dañ koy yootal bu ne kirti ñu jàpp ko tey loolu yëpp dañ na Karim wàdd ma ngay waxtaan ak yow laaj yi tontu ak li nga xam ne moom la gisee ko ñu bàyyi la Karim Wade <laughs> mais Karim attends yow sa pecc mi nga nekkee ci kër gi moom lan la Karim looy fecc ak lu waral sa pecc mi da ngay danse oui samedi oui ay yooyu kiting kiting yéen a nekk la euh, dormir <laughs> merci oui oui papa papa Sidi looy fecc ma ne looy danse nga ne nan laa victoire bi mais mais mais parce que victoire bi euh, victoire bi ñun la man la sama papa la waa PDS la uh-huh. parce que euh, ñoom Amadou Ba wa waa li ñu bëggoon mooy jéem a toroxel humiliation suufeel ma yàqati ma parce que bu loolu amuloon kon tey maa ngi bokk ci euh, candidat yi te yàlla mun na def ma gagné waaye xale ak xale ñooy ànd xale mooy ànd ak xale man euh, je suis tellement content su ma mbokk naar yi euh, Qatar guddi gi yëpp dañu ko féete ay afra ay misui tout le monde Euh, nga baal ma tuuti ma wax ñoom tuuti si arabe parce que avant tout euh, résultat yi bi muy génn ci Qatar ak décalage horaire bi euh, tout le monde kenn nelawul Qatar غزبان مشى لسل في تعسل سنقال ولا سانا وستر له فمسيدي كنت ما في والسمندي يانا نقلب وغنوتي فنان يا كريم نيقو ورا نيقنا سي لا جوا سي لا جوا hôpital boo xam ni kenn ci àdduna te papa dafa dalal euh, Diomaye man maa wax ak suma papa suma papa wax ak euh, suma yaay bu ñuul waxe sax suma yaay bu ah, ah. ñuul waxe sax wax ak suma bajjani <laughs> gox yi ñoom ñëpp ñu gis nga Kébémer dañu fa toj ba mu nga ko gis nga Touba ñu mel nañ waxante dëgg Touba d'accord Pastef am na fa base waaye xoolal lu ñu def Touba. oui dañu ko ratali ratali ratali. oui Touba moom voilà. Karim je ça je te le conseille ah. Touba gars yi nee nañ ci diaspora bi la bokk tellement euh, dóor yi foofu daa métti woon mais Karim waa léegi xanaa nag di nga ñibbisi pour jéem a bokk ci gouvernement beeg yooyu. ah di nga ñibbisi ndax dina ci gouvernement. waaw ndax dina ci gouvernement. waaw mais mais su ma bokkul ci gouvernement bi kan moo ci bokk. moo ma jaaxal. Euh, euh, Karim moo Alboury Ndiaye moo bëtt teen waa Jolof di ci naan mais Karim moo bëtt tunnel waa Dakar di ci jaar man soxlawuma salaire li may am fii am naa ko ba pare. Uh-huh. bu dee côté infrastructure la mun naa leen defal ay lu lu yéeme Sénégal. oui te coupe du monde bi mun nañ ko organiser euh, dans dix parce que am naa logiciel bi am naa architecture yi mën naa tabax Sénégal ànd ak Diomaye. oui. Eh oui ministère buñ ma jox baax na. Euh, ministre conseiller j'ai pas entendu nga ne. ndax nga nekk ministre. wala oui oui oui de toutes les façons. Euh, bu fekkee tànn ñu ma sax euh, je serai là pour nekk ministre conseiller ci auprès de Diomaye dañu koy fêter. woy sama ñibbisi ak euh, victoire bi dañu koy fêter mais euh, <laughs> voilà voilà du côté de ma mère tout le monde est content suma côté yaay ne la woñu démb sama nijaay euh, bu jigéen Justine woo na ma sama nijaay bu bu jigéen Barboline woo na ma si côté Sénégal sama nijaay bu jigéen waxe sax et la dame la maam Diarra Fam suma nijaay bu jigéen ñoom ñëpp dañu kontaan. suma nijaay bu jigéen laa bunte muñ man <laughs> man gisuma gisuma Macky Sall waaye bu wéte dina xaw. Oh. mais c'est ça c'est la réalité <laughs> il fallait ñu xam ne PDS dafa <laughs> Merci beaucoup Abou Bilal on se donne rendez-vous demain merci pour ces moments de rire avec euh, de la politique ah man kay wa euh, ah, dafa am beneen question bu ma la war a poser ah xanaa ma xool rek ci sama ci sama xel mu gàtt. Euh, waaw ministre conseil bi laa wax wala nga nekk ministre conseil euh, bokk si eh, gouvernement encore ma leexal la si jamais Diomaye Faye def ma ministre de l'infrastructure dinaa tabax Sénégal bokk koog moom tabax ko ay euh, tabax yu doy wax ay lu yéeme ay mhm. garabu tàndarma kon garabu koko yi nga xam ne Macky Sall guddi gu nekk moog Amadou ñoo koy lekk. yi ah. ay tàndarma lay def <laughs> donc tout le pays inchallah y a pas de problème <laughs> merci jërëjëf Sénégal merci beaucoup kontaan naa yu ñuul yi ñoom jara euh, sama waxe sax sama yu ñuul yi yu xees tubaab yi ñoom Barboline Elisabeth Marionnette sama nijaay Robert tout le monde oh, Sénégal daxa wadd njak daxa wadd njak Diomaye Karim ànd door mu waaw dama la koy feccal kay. waaw waaw ñu dem wii semaine de. Karim ñëw na réew. waaw waaw wii yooyu wii semaine de Karim dellu si na. wii yooyu wii sam wii opaajam. Karim may sa waat xanaa nag léegi di nga ñibbisi nag. moom wax dëgg yàlla moom Karim mu njëkk ma laay wax de xam naa ni Kouthia moom il a bien interprété la chose mais xanaa Karim bu bees bi dina ñibbisi ndax li ci des ci réew mi suba suba dañuy dem fan Sidi. lundi lundi incha allah jomaay la ñuy am biir pale ak visite ba mu fa doon def bu ànd ak dogalu yàlla euh, mu ànd ak président Ousmane Sonko ñu dem dalali ki nga xam ne moo di président Macky Sall visite ba la fa tukkee li ngeen déggul yëpp caméra yi joxuñ leen ko ku caat déglu na ko si ñoom ba ñëw di leen ko jox bu ànd ak yàlla lundi on est ensemble jusqu'à euh, bon je sais pas di je saurais pas dire mais on est ensemble jusqu'à la fin de l'émission parce que tout de suite on va continuer à vous dire que mën ngeen a woote au 88 628 17 27 88 676 08 08 maa ngi sant yàlla noo def ak coono. sant yàlla. avec le le euh, bon du bon Nescafé. ah du bon Nescafé. wallaay wallaay. du bon Nescafé. waaw kay yéen ñi ñuy mën euh, ngeen Euh, participer si émission bi de manière euh, interactive ah lu ñu lu ngeen bëgg a laajte lu ngeen bëgg waax seen mm. xalaat mën ngeen ko partager ak ñun daañu tànn nit ci gën a njaxlaf comme ni ñu ko defee démb yónnee leen une enveloppe de cinquante mille francs CFA te ngalax bi nag bëgg naa ko jox suñu mbokk chrétien yi xam naa ni jullit ñoom ñu ngi woote waaye réew mi moom mënuma ko tànn ne kii laay jox duma ma jox kii waaye bëgg naa jox suñu mbokk chrétien yi lool am naa ay enveloppe bu deux cent mille ay enveloppe bu cent cinquante mille ay enveloppe bu cent mille bu Euh, soixante quinze ba cinquante mille francs fa man bu weesoo cinquante mille dootuma ko maye donc moo tax ma leen ciy xaar te di leen ci woo yéen ñëpp ngeen ñëw rek euh, ñu ànd au 88 628 17 27 je suis avec aussi Khadija Mayekor notre invité euh, Khadija maa ngi lay ziar bu baax a baax. di maa ngi lay dello ziar. noo def. sant yàlla bu baax.